Euh, waxtu wi dégg na li gën a bari ci taalibe yi. Hmm. ak ñu sax ay taalibe. waaw ah. di dal ci kilifa gu mag gi di leen wax ne nañ ko bàyyi loolu amul njariñ. kon sëñ mu tax waaw. Hmm. dal gi ci kawam amul benn njariñ nañ ko bàyyi. man bi ma déggee benn doomam bu ñu wax saa yu def benn déclaration Ibrahima Mbacké. waaw sama xel dafa dal lool sama xol sat Hmm. ma xam ne ci biir déclaration man li ma ci jàng am na benn audio ne déglu naa hmm. ci ci débutant wax daf ni fii may waxee mën naa fi wax ndax ñun ñoo na fi ne day mel ni kon day dafa bëgg wax ne kon ñun ay bopp ci fi nekk mën naa fi waxee. ci orienté nit ci sa xel avant ngay wax ak moom pour nax ko. Ah, xalaat xalaat daal ne samay wax ji na ko jàppee nii. waaw kay waaye avant tout sax daa bëgg a tey ji boo jotee ci audio bi wax ji mu njëkk a wax ne ma fii mën nañ ci waxtaane da ngay yëg ne audio bi la ah. kon fiit la nga ko war a jox ak ak hmm. fekk du fiit ndax moom mu téye téléphone di enregistré boppam whatsapp boo ko yaa ngi enregistré bopp ah. kon dèjà moom amul problème ci ne te wata whatsapp yëg na ne moom lu ñuy partagé la ah. kon dèjà kon moom loolu wax la bu mu wax waaye jublu ci loolu jublu ci loolu maanaam jublu loolu du maxanaam li mu ci mooy boo ko boo téye audio bi nga am temps am na lu mu ci préparé psychologiquement pour li nga mu dugg ci hmm. ci loo xam ne yërëm naa ko ci lool. waaw ah. li ma ko yërëmee mooy bi mu ne ñi wër sëñ Muntaxa te seeni intérêt baleen fa. Hmm. loolu dama ko ci yërëmee mooy kon moom ndeke bokkut ci ñu ko wër te mel na ni ñu ko wër itam wër gën ko wër en tant doom moom gërëmul wër ga. Hmm. ndax la nit ñi daan wax ci mbedd moom muy doom moo ci gën a xam ñëpp mbir yi te noonu la ko leerale ni ko nit ñi daan jàppee la ko leerale mooy waaye la cay la ca yéeme nag mooy la mu ca tontu te loolu amul njariñ mooy lam ne dégg naa sax ñuy wax ne yow yóbbu na ay million Turquie eh, te bàyyi fii nit ñu xiif ak mar loolu du lu ñuy tontu. Hmm. yooyu du lu ñuy tontu nit ñi di wax de doomandaat kooku yonent bi sallallahu alayhi wasallam alquran dafa ne eh, wa minhum allaziina yu'zuuna an-nabiyya wa yaquuluuna huwa uzun qul uzun xayrun lakum am na ñoo xam dañuy lor yonent bi di wax ne benn nopp la loolu neex waxalaa boo ko gisee boo gi ne mu bala hmm. yooyu mooy yi yàgg am wa ya'lamuuna billaahi wa laqad qaaluu wa xam bi maanaam yéen aadoo maanaam di giñ ngir dëggal seen wax te yéen ne loolu alxuraan loolu yëpp ay gàcc la dul dëgg la te wax hmm. moom mu ni eh, dañu xam ne sëñ Muntaxa yëgul la xew waaye ci biir audio bi ah, moom moola wax ne yëg na ko hmm. ndax ci biir moom nee na am na ko dem tagal ko ay audio hmm. a ah, tagal ko ay vidéo di ko wan jàpp Ousmane Sonko bi mu ne su fii fii de makki defee juum te moom ci mujj boo xam ne ne bi yëgu ko ci mujj nga xam ne sëñ bi bi muy ku xam ba muy wut am information booba daawul seetaan télé biir réew mi daanaka télé bitim loolu daan seetaan. Hmm. loolu moom man d'accord ma ci jooju malgré moom gën a xam sëñ bi waaye man d'accord ma ci. Hmm. sax d'accord ma nit ñu baax ñu duñ noonu maanaam ñu koy tabaxal université bi. Hmm. mooy ñu koy seet mooy ñu koy siyaara. kon ñooñu a mën mënu leen seen i te yoon nee na walaysa minna man laa na bokkul ci ñun koo xam ni na ci ñooñu la bokk xam ne la dafa xeeb li waa télé yi suñu télé yi génn suñu rajo di génn wala suñu information yi ci nit ñi xam ne dox ba moom da ko fi jéggi jàll feneen di ko fa dana jàll feneen di ko seetaane comme man ni ma koy defee dinaa jàpp Al Jazeera bis bu set am seen ñett journal mm, bis am ñett journal yi France eh, am yeneen journal yu gën a kawe ci feneen ci bi ba pare itam dina am sama soxnaa di biir réew yëpp ak sama débat biir réew yëpp ñoo ma gën a intéressé nag parce que ko rek waaye yii moom mooy mooy ma mooy bidaaya bi nga xam moom la ñuy commencé te it moom ne boo ko réeré wut xam nga lépp boo ko réeré maam maam réeré nga lépp loolu moom gis naa ni man loolu du ma d' lu ma d' accord mooy mbiri nit ñi moom suñu ndax ay teewoon na ko teewoon information yi dëkk bi. te ko ñor la te lu muy chiffre lu mu daan chiffre lu ko mën a financer la wax parce que jota mën na koo may ñàkk mayet ndax man sama jëm bopp léegi daf may daal ca ni ji sax euh, ci sëñ ndax ko xam ni mu ni mu ñàkkee jot ma koy wax nit ñi sëñ Muntaxa ni mu ñàkkee jot ni buñ ne la buñ ne la mbir yi seetaanul tere wala rajo bi man dama am jamono yoo xam ne damay egg foofu dama jamono yoo xam ne sëñ Fallou yow da nga ci xam dara keneen keneen dana ci xam dara da nga fi ñëw yàgg fi duñu am duñu am sens pour pour dem def ay enregistrement ak yooyu am bis yoo xam ne nag moom maanaam alxuraan képp pour ma jàng ko faaw ma tëju moom te ci tëju gu wér goo xam du ma ci bañ dara waaw mais la ci des na nga xam ne lu ma mën a ñàkk la moom mën ko bàyyi mu jàll amul benn problème waaye waa wax boob moom seen seen c'est pas d'accord euh, d'accord ma ci d'une part nag euh, yërëm naa ko ci yërëm ci ay moroomam. Hmm. mooy ndeke ñoom ñi nga xam ne ñoo doon njabootam gore mu jural leen boppam. gore mbir yi amuñ ci accès daal amuñ ci accès yërëm naa leen ci lool wax dëgg yàlla yërëm naa leen ci ndax na mu waxee rek boo ko déggee da nga xam ne kii nii kenn gënu ko amu métti te moom ñaari métti lay boole ah. ñaari lay boole jamono bi ñuy critiquer kilifa gi moom day yëg ne sëriñam lañuy critiquer waaye bàyyam lañuy critiquer hmm. moo tax ñu ñi koy def nañ ko bàyyi nañ ko ko bàyyi hmm. mbir yi itam ñi nga xam ne gëmuñ sëriñ gëmuñ ab sëriñ gëmuñ ab sëriñ bëgg cee profité naka jëkk gëmuñ sëriñ ñoom ah naka jëkk gëmuñu ko ah bëgg profité sëriñ nag di leen waxub safaan loolu loolu dëggul fenn Hmm. loolu dël dégul fenn gis nga mbir mi dama leen ko wax bu ngeen waxoon ba sëñ Muntaxa doon doon xaalis naa ngeen dem ba Medina Baye gis sëñ ba fa nekk ñëpp ci réew mi rek kenn doon tudd xaalis fa taxul ngeen seen ressources yi te ah ah, te ñooñu bu ngeen leen ñàkkee di ngeen gis li tax conséquence bi tax ngeen ñàkk leen fi saasa ko gis ngeen ko gis Euh, léegi nag benn erreur rek daal di am erreur boo xam ne damay wax ni mel ni dama wax rek Serigne Saliou Khadimou Rassoul dafa am benn boo xam ne man man man damaa wuute ak nit ñi ci xalaatin yu bari dafa am xam diplomatie la mais du bàtti. waaw ah. Serigne Saliou bi mu defee déclaration xalifa bu mu ko doonee quatre vingt onze yaakaar naa. waaw ah. onze quatre vingt onze. ko yàlla dolli yërmande. quatre vingt onze bu wax ne man loolu lislaam aw ciy defar aw ma ciy yàq. booba euh, man ni ma jàng tey wax boobu yi. mooy dëkk na ci réew moo moom attewu ko hmm. moomul ab atteem te atte bi atte attewut ci diineem hmm. attewut ci ndoonal waajuram attewut ci ndoonal mag ñu baax ne te it atte bi mënu ko obligé ci dara ndax bokk na ci bokk ba Abdoulaye Wade gagné mu jàpp ne taalibeem la mu ne ko ma nga dindi ma laïcité kooku Abdoulaye Wade bëggee dindi lenn ci leader politique yi fi nekkoon ñoo gaaw bala jaxase Abdoulaye Wade ak tubaab bi tubaab ñëw wàcc fi def seen affaire Abdoulaye Wade daa dragal delluwaat ginnaaw hmm. kon dèjà kon suñu seeri man ko fu mm. ba mu xamee ne nag atte permettre ko man ko te bëggu ja na rafet na woor leen xam nga daana ko def mu woor mm. mu xëy koor gi daal di jeex benn bis fàttaliku naa ko euh, mu ñu woor ba onze heures mu ne mu ne dog la ndax weer wi am nañu ma gis nañ ko mm. daal di dog bi ñu dogee mu ne ñu waa ba suba ngeen waaj ndax ngeen mën a julli xam nga na cest kon ñooñu ko kon kon wet googu moom bi defee diplomatiquement xam na ne fii moom mën na fay digle mën na fay tere wala comme mën da digle mënu faa tere au lieu que moo ne fa nekk wala du ñaawoo ña ko yor mën hmm. na leen aw ma defar aw ma yàq mooy seetaan naa leen ci biir seetaan googu nag mel na nit ginnaawam sedd na ci moo tax ma daan wax wax ndax buñ a baax hmm. ndax ñii ñuy jëflante ne mënuñ leen a tax a def mënuñ leen a tax a baax hmm. euh, ndax nit ñi li ndax li ñuy wax ne yéen nañu woon naam bind leen li ngeen soxla ñuy daal di koy gaaral président bi boo ko deful ma ñëwaat fii kenn wax la xam nga loolu dèjà ñoom publiquement ñoo ko wax nit ñi dégg ko waaw problème bi nit ñi am mooy lañ leen doon wax ne bu ko deful dañ di wax ne ko te moom defut lañ wax te ñu def lañ leen waxoon loolu problème bi hmm. mais loolu nit ñi yéen yéen a koy muñ te xam ne loolu saytaane ñoo doon bëgg a jaxase seen kilifa saytaane hmm. ñaare mooy jël nit dugal ko ci loo xam ne yoonam nëw ci waaw ah. amu ci kàddu amu ci ba baat amu ci kàddu hmm. waaw te damay bañ nag Macky Sall Macky Sall xañ leen seen ressources réew ngeen dugg ci li ñuy wax kii ngeen dugg ci li ñuy wax ay taw jihaat ay orientation am problème ak seen kilifa yi diine du hmm. ngeen dox da ngeen war a dox ci seen leader mu yàgg ci prison bi am leen def leen li ñuy li ñuy wax focus focus 2024 loolu man loolu laa jàpp ne moom mooy l'essentiel bi daal hmm. mais du kilifa yi diine bàyyi attaqué euh, kilifa waaw waaw man waaw man man de man de loolu laa ko gisee ndax man damaa gis man attaqué ma cee gisul njëriñ daal hmm. ma cee gisul benn njëriñ waaye li ma ci wax defe naa ne loo xam ne la bu ñu ko defee lu ñuy lu ñuy gis lay doon jëru ko jaru ko ndax lay da nga ànd koo xam ne sëñ bi day gëm sëñ bi boobu sëñ bi ne ko wàccal sa soxna ma tàkk ko mu def hmm. dégg nga def ko nga ànd ak xam ne na sëñ bi mais bu ko sëñ bi ne ko lay wàcc far dama te ñaar ñëpp ay taalibi lañ ah ay <laughs> ah, ay taalibi lañ hmm. te daje nañ ci benn pas-pas muy bëgg Ousmane Sonko nañ leen rek bu defee lépp ànd wax ci jàmm ak salaam ah